ne man dama war a am meilleur les meilleures mhm. kon du ma bàyyi science du ma bàyyi littérature mhm. mais arrivé à un certain moment mhm. li tax ma bind mooy alxuraan ndax dama jàngat nag ni àdduna di doxee ma gis ne nit ñi dafa dañu mel ne dañu fàtte seen borom te alxuraan bàyyiwul dara ñu mel ni lu réer te gis nga alxuraan mooy li ñuy mooy lumière bi ñuy woo mat ci kaw suuf ndax ñun mhm. dañu nekk ci néegu lëndëm mhm. alxuraan moom dañu war a leerloo mhm. sinon dañuy tëñëx tëñëx yi duñu xam fu ñuy dal mooy li ñu seetlu ci jamono mag comme ndaw xamatuñu fu ñuy dal ñëpp dañu réer parce que fi ñu war a gindeekoo la ñu demul parce que téere bi yàlla wàcceewu ko rek pour ñu tenc ko ci placard yi parce dafa wax ak ñun message la bu ñu la bu ñu la buñ la kii bu ñu la lancé comme mm-hmm. c'est tey jii sa téléphone bu ñu la envoyé woon message danga nga koy lire. Mm-hmm. kon alxuraan message la. Mm-hmm. dañu war ko dañ ko war a ubbi. jàng ko xam ci xam yàlla lu mu ci wax dëgg la nag arab lañu ko bindee. mais dañ ko war a fexe xem parce que alxuraan traduire nañ ko ci langue yu bëri. def nañ ko et léegi jumtukaay yëpp met nañ ko en place pour faciliter nit ki. surtout loolu mën a jàng. waaw moo tax man euh, dëgg la ñun ba ñu nekkee ndaw. parce que sama papa da doon def boo mënee wax rek. Mhm. da ngay commencé dem ci daara biir kër gi dafa amoon daara. Ah. da ngay jàng alxuraan ba keroog ngay dugg école. Mhm. te boo duggee école tamit ah, ngay jàng boole école bi ak alxuraan léegi nag man dama xaw a sopp tuuti. Mhm. may jàng alxuraan ba ci yàgg man daal man ni man daal bëgg naa xam daal li yàlla wax ci biir alxuraan bi. waaw parce que alxuraan dégg naa du jàng ko kese. mooy tax a comprendre. mais nag nit ki fa nga toll ci yàlla ngay déggee alxuraan. Ah, nit ki fa nga tollu ci yàlla. ngay déggee alxuraan déggin bi dafa wute. Ah. Hmm? déggin dafa wute léegi nag ma nekk di jàng alxuraan bi. Mhm. gannaaw ba ma wutee kaamil boo xam ne dafa am français ak al euh, ak ak alxuraan mhm. su ma kii te ba léegi sax nag. Mhm. moo tax boo dee jàng di jàngat dangay ngay nga déggee ci loo xam te ne déggoo ko woon. sa tolluwaay nag lay lay doon. ba nga xam ne di romb foo xamante ne nii. des fois di nga ne ah lii de li ci yàlla wax. Mhm. nga ngay xool àdduna nag say xel sa xel di dem ci ay alxuraan yi. Mhm. nga xam ne yàlla kamal la. waaw parce que loo gis ci àddina rek yàlla def na ko ci alxuraan. waaw bien sûr alxuraan mi ngi mel ni rek benn projet bu yàlla teg. Mhm. moo jiitu àdduna. moo jiitu àdduna te te euh, euh, maanaam yàlla dafa jël ay mbiram yépp teg ko ci yoon. Mhm. il y a des lois le monde. Mhm. ba nga xam ne euh, alxuraan bi ni mu amee téere ci kaw suuf noonu la amee téere ci kaw. Mhm. chaque chose a son correspondant. ba tax na dafa am benn aaya alxuraan boo xamante ne ni. mu ngi nekk ci sourate Yaasin. Yaasin la boobu dafa dafa tënk lu bëri. baado aousubillahi mina shaytaan yàlla mi ngi wax ni subhaana lazi xalaxal azwaaji kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun nee na gloire à celui qui a créé les couples de tout ce qui tout ce qui existe c'est-à-dire gloire à celui qui a créé tout ce qui existe en en couple subhaana lazi xalaxal azwaaji kullaha mimma tunbitul ard li nga xam te ne ci suuf la la jógee wa min anfusihim ci ñun wa mimmaa laa ya'lamuun ak li nga xamante ne nii ñun xamuñu ko. Mhm. te loolu dafay dugg ci ray bu mhm. ray bu mooy li nga xamante ne c'est l'inconnu. Mhm. c'est le connu du Seigneur. ñi nga xamante ne yàlla rek moo ko xam yàlla rek moo ko xam. kon looloo tax nit ku nekk dafa am am sœur. moo tax ñu naan la booy takk. da ngay dégg bu ñu takkee soxna ba pare bu ñu takkee soxna dañ naan que yàlla na nekk sëy bu ñu takkee ci aras. ci aras sëy dañ koy takkee ci aras ba pare. Ah. Hmm? ruux yi dañu takkante woon ba pare. moo da ngay gis koo xamante ni dina am jëkkër yu bari wala ku am soxna yu bari fekk na ruuxam dafa. Euh, dafa dafa ànd ak dafa ànd ak kii yu bari d'accord parce que euh, parce que ba yàlla bindee ruux yi ba pare. Mm-hmm. xam nga ba mu waxee ne xanaa man duma seen borom dañuy xam dañu ne xaalu balaa léegi nag. Mm-hmm. Euh, gis nga ruux yooyu ruux bu nekk bu dalee kaw moroomam mm-hmm. dal ci <coughs> beneen faw da ngeen di ànd. Ah, même bu fekkee ñeent la. Mm, waaw faaw même bu fekkee ak. faaw ànd dafay am. di nga jóge ci bii dem ci bële jóge ci bii dem ci bële loolu mënoo ci dara yëpp suñu borom la. waaw yëpp suñu borom la. maanaam moom problème yëpp la réglé. Mhm. lépp lu doomu aadama dund ci àddina yàlla def na ko ci alxuraan. Mhm. te tout est créé en couple. Ah. moo tax mu ne subhaanallazi. deful benn rek xalaxal azwaaja kullaha waaw gloire à celui qui a créé tous les couples de toutes choses daal maanaam loo xamante ne nii rek gis nga ko ci kaw suuf rek ñaar la ndax moom yàlla moom dong mooy kenn wax nga dëgg day mais bindam benn la. waaw ah, bindam benn la moom rek ay kenn waaye loo gis ñaar la. loo gis ñaar la ok. tax ba mu bindee. nit mm-hmm. Mm-hmm. benn la njëkk a bind. waaw lu tax bindul ñaar xam nga dafa bind aadama ba pare. Mm-hmm. ci faaru mu génnee ci awa. waaw lu tax bindul aadama bind awa te mënoon na ko. mais moom kenn la. ñu tax mu def loolu moom. parce que impair la moom. ah parce que mooy kenn. ay y réfléchir. bien boo dee expliquer ak ni nga ko bindee ci livre bi. ñi mhm. tax dina comprendre lu mu comprendre comprendre woon ci alxuraan. wala lu mu comprendre woon ci yàlla. Mhm. parce que dafa bind aadama. Mhm. bindee ko ci ban. ba ko bindee nag lépp loo xamante ne nii lu nit war a mel la rek daf ko dëxëñ ci moom. aadama nit ku ñuul la woon. waaye nag génnee ci moom nit ku weex. gis nga ñuul moo jur weex. ñuul moo moo moo jur weex. Mhm. fan nga teg loolu. parce que ci alxuraan la. Mhm. xam nga da ngay gis guddi ak bëccëg. Mhm. guddi moo jiitu bëccëg. dëgg la. Hmm? dëgg la. da ngay gis nit ku ñuul jur nit ku weex. dëgg la. da ngay gis loolu. parce que jeunes yi dafa am man ba mu ko bindee dafa jël jeunes yu bëri rek ci maanaam jeunes yi nga xam te lépp loo xam te ne nii rek euh, lu lu nit war a mel la mi ci biir Adama. mais xanaa sax ci science boo jëloon couleur yëpp dajale leen mais noir lay jur. oui parce que loolu daf ma jaaxal la plupart de li ñu fekk ñun àddina. Mm-hmm. alxuraan jiitu fii bi alxuraan ñëwee.